Diagne ci seen émission 7 voix du cœur à chaque fois rek euh, comme ni ma leen ko tàmm waxee bu mardi jotee ñu ànd ak yéen ci li ci réew mi ak ñi nga xam ne rek moo ne ci néeg yu lëndëm yi tey jii may wax ak yéen nag ñu ngi fii fi nga xam ne rek euh, mooy Thiaroye euh, ñëw nag seet si soxna suñuy wooyee Fatou Condé doon soxna soo xam ne dafa am li nga xam ne rek mooy doom bu feebar mooy feebar bu yàgg. xale bi mi ngi tudd Cheikh Tidiane. Euh, Bathily Bathily Cheikh Tidiane Bathily nag euh, ma nga judd woon ci atum 2010 euh, jamono ji may wax ak yéen ci at bi mi ngi am fukki at ak ñett waaye nag doon ki nga xam ne xale la boo xam ne bu mu juddoo ba tey bi mu amee un an et demi un an sept mois. Mhm. ci la ko feebar daaneel feebar bi ñu ne méningite la mhm. ci li ñu wax méningite boobu dal di rek déformé xale bi daal di rek déformer cër yi euh, xale bi nag euh, jotu la sax euh, mën a wax ndax bu ma commencé jàng dox rek nekkoon xale bu rafet macha allah gis ngeen photo yi ci la ko affaire bi daal di daaneel euh, ba ni mu amee nii nii fukki at ak ñett boo leen ko gisee nii 13 la am waaye màggul maanaam waxul te yenn mouvement yu bëri munu ko te cër yi gis ngeen ni mu bindoo muy lu doy waar lu metti Fatou euh, Kande na Konde euh, doon soxna soo xam ne boobaak léegi mu ngi jàpp di toppatoo doomam weetu ci ndax ay dëkkandoom ñi ngi koy jàppale ay mbokkam ñu ngi ciy jàpp waaye nag moyen bi faj bi laaj yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dañ koo mënul tax nag ñu ñëw ci li nga xam ne rek mooy 7 voix du cœur sur la 7 TV diis leen ko di ci xaar li nga xam ne rek mooy solution nuyu nañ la bu baax a baax euh, soxla si. maa leen di fay. tur bi Fatou Konde. Fatou Konde laa tudd mm-hmm. dëkk Caaroy. Mm-hmm. yaayu Cheikh Tidiane Bathily. Mm-hmm. waaw ma yore ko nag depuis bu mu amee at ak juróom-ñaari weer ba tey maa ngi ak moom. mu feebar feebar bi nag crise la ko dikkee woon ma dem ak moom fan ba laataa ñuy dem ci feebar bi ba mu juddoo yaay boy hmm. euh, naka la demee ba mu juddoo ba ni mu amee un an sept am yenn genre feebar yu ndaw ndaw yooyu yi siñ yi siñ jooy rek ba mu juddoo ba indi ko si kër gi dafa jékki-jékki ba mu amee un mois c'est la commencé di jooy di jooy di jooy di jooy di jooy léegi may dem ak moom hôpital fu nekk ma yóbbu ko. di ko xool nekk ma def ko léegi benn bës mu jékkee-jékki rek crise boobu am na un boobu am na ak sept mois. Mhm. léegi bu mu crisé daw moom fan mu demee fan ñu téye ñu fa. am nañ fa mais lépp normal woon kon si photo yi ni nga ko wanee. waaw lépp mhm. normal woon. Mhm. dara jotu ko woon parce que doon na raam bay commencé dox waaye si la ko feebar bi dugg daal mu mel nii. waaw. feebar bi bi muy door naka la demee woon. bi muy la ko dikkee la ko dikkee crise da commencé di crise ba mu crisee mu yóbbu ko fan nag mu ko yóbboo si la ñuy entré foofu am naa fa neuf mois yàgg naa woon fan pavillon o hmm. fa laa nekkoon ak moom yàgg naa fa waaw di ma génnee ñu ne ndox moo nekk si boppam léegi ñu opéré ko ma delluwaat opéré ko fay si lu seer mbokk yi jàppale ma mu fay si lu seer ñu génn ñu génnee nag ba léegi arrêté wu ma maa ngi dem. Euh, ñu dem étape par étape bi ñu nee ndox moo nekk ci bopp bi. bi ne nee ndox ñu defal ko opération. après nan la demee opération. Hmm. ñu defee opération. dafa dañoo jaaree raakol ci kiyam si dënnam. Hmm. léegi boobu ba léegi nag dama daan dem di def rajo di def. scanner def yëpp waaye jamono yii daal. pour ñuy xool raakool. pour ñuy xool. kon bi mi ngi ci moom ba tey. waaw ngi ci moom ba tey. Hmm. waaw waaye léegi nag jamono yii la bindal rajo pour ma def ko pour ñu xool raakool bi fan la nekk parce que raakool bi moo tax muy jooy parce que raakool bi lam dem naa fi mu ko def pour ñu xool ko bi ñu demee ñu xool ko ñu ne ma scanner lañ ma laaj. waaye comme damaa faj faj faj faj doole amul. Mm-hmm. awma doole. loolu moo tax biñ ma waxee scanner bi ak tey yànk na ndax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw yàgg na uh, ana ana waajuram bu góor. waajuram bu dafa wàññeeku. kañ la wàññeeku fekk na moom mu mu fekk na mi ngi feebar. Mm-hmm. waaw ba avant muy gaañu doon na doon na ci bos lu àqam di ma si jàppale. waaye comme dafa wàññeeku moo tax amatuma doole. waaw. Euh, bi ñu koy opéré euh, fekk na ko fi. waaw fekk na ko fi. naka la demee woon. waaw dañuy première opération bi en tant que yaay ñu ne la dañuy sa doom boobu cër yi melagul nii. déedéet melagul nii. ñu ne la dañuy def raakool ci bopp bi mu jaar ci biir bi. naka la demee woon noonu expliqué ñu détail par détail. ah loolu laay mën a nangu rek soña loolu laay mën a nangu. Hmm. parce que bëgg naa sama doom. te tamit luñ ma wax ne loolu moo koy waral rek yaay bu nekk xam nga mu ne la sa doom lii moo koy def moo boo ko defee dina dina baax noonu rek ngay mën a def sooña doo gis leneen lu dul loolu rek ngay gis papam naka la ko dundee woon jamono comme ni ma ko dundee rek la ko dundee mm-hmm. comme ni ma ko dundee rek la ko dundee mm-hmm. euh, léegi ma demee hôpital ñu ne dañ koy opeere waa après nanguwuma woon. après ba mu yàgg ma demee waxtaan ak docteur mu ne ma loolu ndox moo nekk ci boppam il faut ñu dindi ko ma d'accord ak moom. waa jox ñu dat ñu dem bi ñu demee ñu opeere ko ñu génn ñëw si saali ma laajte ñu ne ma opéré bi réussir na. sant suñu boroom bu baax di ko gën a sant ñu nekk fa cinq jours après ñu génn ñu génnee ñëw si kër gi. damay dem rendez-vous di ñëw di dem di ñëw di dem di ñëw waaw parce que li seen feebar bi xaalis la laaj. mais ci boobu la waxee ne méningite. waaw ñu méningite la ñu paralysé cérébral. Hmm. waaw paralysé cérébral la. Hmm. waaw nekk di dem di ñëw dem rendez-vous doo demee ay scanner lañ lay laaj ay rajo ay analyse nga ñëw lijjanti demaat dem defi te aw doole. dama doon dem di liggéeyi. mais boobu ba tey cër yi melul ni déedéet mel woon. Euh, kañ la commencé cër yi di déformé. comme bi ma feebar bi ko commencé di dugg muy crise parce que crise bi moo ko gën a sonal. Mm-hmm. crise bi moo ko gën a sonal waaw moo ko gën a sonal moo tax cër yi dem ba commencé di def nii. mais bi muy commencé yaa ngi koy remarqué. waaw maa ngi yi commencé déformé. waaw maa ngi koy euh, ndax jéemoon nga ko yóbbu hôpital ñu xool ndax. waaw ni ñu bi baax na wala baaxul ak dem naa. ñu mhm. xool ko. Mhm. léegi ba ma demee xool nañ ko. pare ñu bindal ñu ay garab ñu ñëw. léegi ba ma delluwaatee rendez-vous weer bële paase si lañu ñu bindal scanner nag ñu ne mën naa def scanner pour ñu xoolaat waaw scanner boobu. Mhm. awuma ko nag parce que damay dem hôpital su may dem il faut nga fay 5000. soo demee da ngay jënd cinq 5000. sooy ñëw tamit da ngay fay 5000 nga ñëw. te xëyuma gontuwuma bëgg naa nag lii nii pour ma defoon ko yàggoon na. waaye nangu mu woon. parce que dama doon dem di ñafe di liggéey pour mën a dimbali sama doom dama doon liggéey. la doon laa doon xëy. ma doon dem di xëy foofu pour daan sama doole pour ñëw def def sama doom mm-hmm. awma ko parce que awma mm-hmm. léegi ba léegi maa ngi daw mosuma kaa daw duma ko daw parce que doom ju ma gën a bëgg la sama xol mm-hmm. am nga yeneen doom yeneen doom moom laa mujjee am waaw ma bëgg nag ku ma jàppale trop bëgg naa ko ma dimbali bëgg naa ko ma dimbali ma def sama scanner bëgg naa ko ma dimbali pour ñu xool appareil ba ñu dugal bu dee dafa dañ koy changé ñu changé. Mm-hmm. dafa yàgg. yàgg na. Mm-hmm. sonn naa torop bëgg naa nag ku ma dimbali tàllal naa sama loxo ñëpp. Mm-hmm. tàllal naa sama loxo. Euh, nguur gi bi ngay dinañ ñëw ci loolu. léegi dañuy dem euh, seetaani témoignage jaajëf soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix mu nekk ku dal nekk ku am sago man defe naa ne yaay handicap. day xat ci ñu gën a bari du ñëpp sax yu gën a bari dañoo xat dañoo yàkkamti seen àddina dañu jéppi ki ñu yor di ko fotanxal di ko xiifal di ko maral parce que am na ñoo xam ne defe nañ ni doom yi mel ni bokkatuñ ci ci famille bi bokkatuñ ci askan bi parce que du ñu ah mooy li mooy mooy li ma lay bëgg a wax rek dafa am ñoo xam ne nii bu ñu amee doom ju mel nii duutuñu ko boole ci askan wi duutuñu ko duutuñu ko boole ci fay bi te yaakaar ne bokk ci te bottaan ci la bokk parce que yàlla bi nga xam ne moo ko seet ba jox la ko may la na xol bu yaatu boo ko téyee loolu laay gërëme faatu bala ngaa dem fenn may ko mu lekk bala ngaa dem fenn sang ko xale bi tilimul xale bi amul benn problème foo ko fekk nii rek lay mel billaahi wallaahi bisu àjjuma laa nekk waaye doonte woon ñëwuleen fi sax xale bi nii lay mel faatu bu xëy dina ko sang dina ko solo yére yu set dina ko teg ci euh, palaasam bi mu fi mën a toog séntu ko ba du daanu amul benn problème saa bu xëy nag ni ma baal leen màq man ko lu xew ba démb moo ci mujj baal leen màq ndax Cheikh Tidiane day jooy man man faatu dégguma sax ci Cheikh Tidiane mu jooy yàlla mi xam ne su ma ko déggee sax man maa ngi ñeewantu Cheikh Tidiane di ñeewantu la yaayam ndax kii jaboot dina mën na ko jur. li ma ci gën a metti man mooy premier deuxième étage bi mu dëkk. te boo xamante ne Cheikh Tidiane crise na da koy gàddu daa daw moom te xam nga ni fàttànk yi neexul mais da koy gàddu daw ne wutal leen ma taxi moo seen mu jaay bi ñoo dend appartement kii moom moom fii Fatou moo topp ci moom mais da koy gàddu du xaar sax góor jëlal ko ko moo koy jël teg ci mbaggam daw man damay jaay ci suuf mais su ma gisee taxi bi gaare faatu gàddu xale bi di wàcc moom vraiment sama xol bi day jeex tàkk tàkk day fees dell ndax damay xam ne rek xolu ndey ak doom mënul xaar mënul xaar nga naan góor kaa jëlal ma ko te moom moo fi nekk ak benn doomam bu góor kooku tamit day jàngi wala mu liggéeyi mënul góor mënut fu mu tolli toog faatu mii moo koy gàddu daw moom wàcc escalier yi ñaari escalier ñetti escalier ñeenti escalier wàcc suuf soo ko wut sa euh, taxi fekk taxi ñoom mu ngi ko gàddu jamono ne ngir yàlla ay yonent bi yàlla sunoom dina la dimbi dina la taxaw dina faj say aajo ci barke yonent bu tedd bi salaam salaam. jërëjëf euh, kon euh, ñu daal di rek euh, dégg kàddu yooyu di ay dëkkandoom ñoom it seede maanaam cofeel bi mu am ci doomam set gi toppatoo bi ñàkk daw responsabilité bi nga xam ne rek def na ko ci li ko suñu borom teg lii di ko firndeel soxna si bi ngay dem usine mèche naka nga ko doon su may dem damay xëy damay xëy yeewu 5 heures. 5 heures mayewoo yeewoo sama ma sang ko may ko mu lekk solo ko yére boot ko yóbbu ko suñu kër ma demee su ma demee sama mag bi laa koy bàyyil tëyal ma ko su fekkee damaa wàcc cinq su ma ñëwee ma jël ko ñëw su fekkee damaa wàcc huit su ma ñëwee dinaa fekk sama mag defar ko mhm. may ko mu lekk defar su ma ñëwee dama koy boot rek ñibbisi mhm. tamit noonu laa doon def mhm. mais ni mel nii ak yi mën nga ko boot dama ko daan boot. danga ko daan boot mais léegi mënatuma ko boot mënatuma ko boot. Mm-hmm. dama koy teg si rek mënatuma ko boot. Mm-hmm. danga koy teg ci chaise bi takk ko. waaw chaise bi laa koy def takk ko. Mm-hmm. Euh, euh, léegi boo demaan ba ñëw après ci ngay mën a fay sa location lijjanti sa bopp. nekk ci yenn ordonnance waaw waaye léegi amatuma ko. danga jékki-jékki bàyyi liggéey bi. waaw ndax lan. ndax ni dem naa ba léegi comme ni may yëkkatee kii di tëdd dafa dem ba jàpp sama digg ginnaaw gi dama amee ndikk may doxee ma amee ndigg kon li ngay doxee ni tamit juddoo woo ko déedéet menuma nii de meloo woon nii menuma nii maanaam coono bi rek coono bi moo la def mu jàpp euh, boobaak léegi euh, appareil bi mu ngi ci li nga xam ne rekk mooy euh, ci xale bi ñu jaarale ko ci bopp bi mu jaar ci biir bi. am na 13 ans. wala ay 12 ans yooyu ndax xale bi 13 ans la am mi ngi judd 2010. waaw boobaak léegi naka naka ngay dundee loolu. ah sant rek sant suñu borom rek ànd ak suñu boroom rek saa yu ma xëyee tàllal sama loxo suñu borom di ñaan yàlla rek mu des ci sama loxo. Mm-hmm. waaw papam bi muy gaañu boobu moom mi ngi am ñaata sori na. papam bi muy gaañoo léegi ñetti at la. boobu am na fukki at. Euh, naka naka nga dundee maanaam di bi papam di gaañu ndax mën nga ñu si ñëwaatal. ak ci période boobu papam nekkuma woon ak moom parce que papam damaa divorcé woon ak moom. Hmm. moo tax mais moo ci doon jàpp moo ko doon jàpp hmm. léegi nga jékki-jékki moom mu dem. voilà xale lu métti euh, Fatou Kandé. Hmm, euh, doon koo xam ne rek gis ngeen xale bi mu foog ni doomam la mu ngi am 13 euh, ans doon xale boo xam ne à l'âge naa an mois la ko méningite dab muy feebar bu yéeme doy waar boo xam ne rek gis ngeen ni mu def ceeru xale bi xale bi màggul euh, te tamit euh, mënul dara mënul boppam lu bëri ay dëkkandoom la dëkkal ñu koy jàppale ak ay mbokkam dañuy dem seetaani magam bu jigéen léegi léegi ci témoignage daal di saat si waxtaan bi sur la 7TV ndax comme ni ko waxee rek bu daan dem moom la koy bàyyi muy lu métti léegi léegi lay doon sur la 7 ci seen émission Saveurs du Cœur. ba mu juddoo dara dalu ko te doon jàng sax dox di dox bu ñëwee may foog moom muy reetaan ci ay nelaw daal la ko fekk muy ay 5 mu yeewu mu yeew muy jooy di jooy ba yaayam yenu ko yóbbu ko hôpital ñu entré ko entré boobu mu nekk fa nekk fa ba lii. opère def mu génn day kiriis day def la def lu nekk wax dëgg yàlla def see sonn nag sonn na torop si si doom ji doom ji buy dem nii jaral na ko bañ a dem dina ko jox lekk dina ko toppatoo defar foo ko fekk xale bi dafa set foo ko fekk moom tilim dafa set wax dëgg yàlla ñu dimbali ko rekk fajal ko ko metti na torop entrée hôpital amul ku ko dimbali dimbali bi mooy problème papa xale bi gaañu na ay magam daan nañ ko ci jàppale tamit nag waaye mujjee xam nga rekk jamono moo neexul waaw na ci xale bi bu feebaree bu crise nii day yenn saa day crise xaaju guddi mu daw hôpital bu xëyee woo ma ne ma maa ngi hôpital ma fekki ko hôpital dëgg yàlla sonn na si torop da doon liggéey sax mu bàyyi liggéeyam pour xale bi da ko doon indi si man ma ko koy téyel di ko toppatoo ba kër ga suñu kër booba sama yaay mi ngi dund même jour bi sama mu ñu doon dëjal sama yaay sax ba sama yaay gaañoo jour boobu crise na fa hôpital ba la la mujje moom xamul dara si dëj bi sama moom mii xamul dara si dëj bi fa la nekk ñu téye ko wax dëgg yàlla ngeen dimbali amee ku ko dimbali si xale bi ñu fajal ko ko wax dëgg yàlla bàyyiwul xale bi bàyyiwu ko de mi ngi koy toppatoo ko dim ku ko mën a dimbali nga dimbali ko. jërëjëf euh, kon nag euh, Fatou ma bàyyi la rek nga wax ñu ci sa diggante ak sa doom mm. maanaam xale bi mënul wax mm. mënul dox. mënul lu bëri mais am na yu bari yoo xam ne jóge na ci moom ñëw ci yow am ngeen benn relation bu particulière boo xam ne yéen a ngi koy dund amaana nit mënul wax ak moom mais yow di nga comprendre lu bëri ndax mu ngeen ñëwal ci seen relation yi ñoom damay wax ak sama doom damay wax ak moom su may wax ak moom bu mu comme léegi su ko fekkee dafa bëgg a lekk dina gëmmu bëtam su ma ko laajee ndax dangaa bëgg a lekk dina gëmmu su fekkee ni dafa bëgg a sangu moo ko laajee dina gëmm ni moom dafa bëgg a sangu lu mu bëgg bu ma ko laajee dina dina wax ak man comme léegi su ma waxee moom dina gëmm bëtam dina xam li ma wax noonu laay dundee ak sama doom te tamit ma si sant suñu borom bu baax parce que bi ma nekkee femme amu woon loolu daaw ma woon woo sama doom mu ma te léegi su ma ko woowee dina ubbi ay bëtam xool ma Mm, daawul wuyu. déedéet daa mel ni dafa jàppoon loolu. waaw woon wuyu waaye léegi dina mu wuyu comme maa ngi topp traitement yi dina mu wuyu maa ngi lijji garab yi tamit dafa seer dem hôpital bi tamit seer na duma am. garab yi la dafa am garab yoo xam ne chaque jour da koy jël wala. waaw day jël Nivotrine. day jël Dépakine ak Nivotrine. chaque jour waaw da koy jël. waaw loolu dama koy jënd. ndax mos nga dund ay moment loo xam ne garabam dina jeex waxuma la jënd garab mais amoo sax loo ko jox ko mu lekk ba ko jënd garab moment naka la demee ñu ñëwaat ci. sant rek nañ sant rek même tey tey tey sax mm-hmm. loolu moo ma dal bi ma ñëwee maa ngi koy waxtaan ak sama mag waaye maa ngi sant. nan naka la demee. sama mag. dafa ñëw fekk ko muy jooy mu ne ma lan la ma ne ko ah moom suba ba tey lekkul ma lekkul ma ne ko déedéet ma li tax lekkul ma ne ko tey naan dama amul xaalis de moom moo ma jox léegi ma dem jënd ñëw defaral ko sama mag la ñoo bokk ndey mooy sama taaxu yaay moo dund ak yow mhm. Mhm. mu si jàppale lu bari féete ma place bi ma sama yaay féete. Mm-hmm. sama yaay daa wàññeeku. bi muy wàññeeku boobu fekk na xale bi muy wàññeeku sax xale bi dafa crise ma dem ak moom hôpital. Mm-hmm. hôpital laa laa nekkoon yëguma sama saraxu yaay dara. Mm-hmm. am naa fa un mois may doogu génnaat. metti torop nag. mu metti nga koy dund ak say mbokk la ci jàppale euh, ndax dafa am alimentation spéciale lu muy lekk wala amul lu ñu koy tere ankay day lekk soo ko joxee nii il faut nga parce que am na yenn lekk yu bëri du ko nag boo ko lekkee daf ko lekkee daf koy sonal hmm. comme day jël ay seralak ay nga jël jën lenn saa yi nga dëbb ko def ko soos def si pomme de terre ak yooyu nga jox ko léeg-léeg tamit nga wut ndawal dëbb ko def supp def si pomme de terre nga toj nga jox ko waa yooyu yëpp dina ko lekk waa ak ruy waa day kuusu day kuusu mhm. koy kuus mhm. waaw dangay jënd kuus waaw ñu mhm. metti torop ndoxam tamit danga koy jënd mm, du naan ndox bi ndox bi duma ko ko jox damay faral di parce que dama ko daan jox parce que day waccu léegi ma bàyyi ndox boobu di jënd ndox di ko jox. Mm-hmm. boobaak léegi paj mi lan nga ci gis ndax yàgg na xale bi euh, mën nañ ne 11 ans yi demi mi ngi faju ndax yëf yi mi ngi ko daaneel bi moom mi un an sept mois euh, naka naka nga gisee paj mi naka la demee waaw ah, dem fan fan laay traité woo hôpital fan docteur Moustapha Ndiaye moo ñu yore ñu dem ñu dem jël rendez dañuy dem massage tamit. day day def massage ñu dem def massage. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Philippe moo koy defaral massage. Mm-hmm. waaw ah, ma dem hôpital wax ko fa. ñu ma il faut ma def kon jooy bi nii daaw ko def. déet daaw woon jooy. Mm, bi mu commencé yàggul. mu commencé léegi ci ay trois mois la tollal di jooy di jooy rek. di jooy di yaram bi di wàññeeku muy jeex rek di dem. tollul woon nii. amoon na tuuti yaram. moo gën a tax mu bëgg daal ku ma dimbale ku si mën a jàpp. bi nga demee hôpital après naka la demee. bi ma demee hôpital scanner la wax naa def. Hmm, ci lañ la bindal scanner. waaw si lañ ma ko bindal pour ñu xool ko. Hmm. scanner ak analyse. ak analyse waaw wax naa ko def waaw. lépp pour xool état xale bi appareil bi nekk ci bopp. waaw waaw waaw naka lay évoluer. Mm-hmm. mais à part loolu daa ni gëj nga dem pour xool ko. waaw gëj naa dem. lan la lu tax du moom. parce que amatuma soo ñëw amatuma awma pour dem yóbbu ko. mu mm-hmm. am su bëggee dégg dëgg rek. Mm-hmm. dama am pour yóbbu ko de. alors moom sa métti na trop war a faj sa doom amoon na ko fajee loroon na pour dem di dem di jënd ticket muy loo xam ne lu metti la Fatou Condé mooy suñu sœur bi toog nga xam ne rek giseen doom ba mu ngi tudd Cheikh Tidiane Bathily Bathily euh, xale bi euh, yëf yi mu ngi ko dab bi mu amee un an sept muy feebar boobu di méningite Euh, déformé yaram bi euh, daal di koy sonal lool lool lool lool lool euh, bu mu amee 10 ans nag way juróom bu góor daal di wàññeeku te nag moo ko doon jàppale ci li nga xam ne rek mooy faj mi boobaak léegi muy daw ak a daanu di jóg ak daanu nekk ci doomam waaye nag dafa am appareil bu ñu monteel xale bi ci yaram bi appareil boo xam ne on sait jamais mën na bouger mën na bañ nekk sur place ndax comme trois derniers mois yi ni mu ko waxee xale bi dafa agité day yuuxu day am ay métit euh, doo xam li koy métti sûrement mën na nekk loolu euh, waaye li ko sooxee bokk na ci gëj a dem hôpital euh, xool li nga xam ne rek mooy appareil xale bi ndax am na yenn yoo xam ne bu ñu la ko defee dafa laaj suivi dafa laaj contrôle bu ñu demee nag ba paas bi nga xam ne moom nga war a passé pour dem hôpital pour contrôler ko yoratoo ko kon nag euh, wala loo jox xale bi pour mu lekk yoroo ko yaakaar noo doo xalaat pour dem di jënd ay euh, di def ay analyse di ay li nga xam ne rek mooy scanner loolu lay dund mu ngi lu metti trop ba tey rek euh, ci ay seede dëkkandoo léegi léegi lay doon ñu dem seetaane ci kenn ki des rek daal dellu soit léegi léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur ak ki nga xam ne rek mooy Fatou Konté. Cheikh Tidiane waa sama doom la parce que ma yaayam ñoo dëkkandoo ci aar fii yàgg nañ Fatou macha allah. mais mu yore doom ju wér ji waaye mu doon jàmbaar jàmbaar la ci xale bi xale bi doo gis mu taq doo ko dégg mu jooy doo ko gis mu xiif dëgg yàlla ku beesi xale bi la parce que lii yombut genre doom yi yàlla dala koy jox di la testa di la xool mais jàmbaar la hmm, ndax xam nga yore doom ju mel nii yi war ci moom dafa bari boo amul doole bi rek day metti soxla ne ndimbal nag ku ko dimbale nag jàppale ko ci doomam ji mu jël ndax nit ñu nit ñu baax ñi ñi ngi fi waaw parce que doom ji yenn saay day day day jooy te du xam lu koy metti xam nga loolu tamit metti na bu mënoon wax dina wax lii wa koy metti mais du mën a wax xam nga lool metti na tamit waaw loolu dund naa ko moom ci kër gi te day jékki-jékki di jooy waa Sénégal ñaa ngi fi te ñuy def te yàlla tax tamit ñi ngi fi suñ ko mënee jàppale daal si doom ji daal mu jël macha allah sonn na ci torop nag sonn na ci torop bàyyul xale bi mu ngi koy toppatoo dara ma manquéwul daal mais ku ko si jàppale mu jël waaw ku ko si jàppale daal mu jël ndax nit ñu baax ñu ñoo fi te yàlla rek moo tax ñuy def kuy def daal te yàlla tax nga jàppale ko ci doomam incha allah loolu rek la ñuy ñaan dëkkandoo bu baax la set na macha allah toppatoo na doomam waaw ndax yombul daal. doom ju mel nii bu la ko yàlla joxee yombul mel yenn yi ci moom waaye sonn na ci doomam torop macha allah. jërëjëf euh, metti na euh, soxna si. Hmm. Euh, say dëkkandoo kàddu bi benn la. tey bett nañ ñëw nañu fekk si la. Hmm. xale bi set wicc mais nee ci nga dëkk ak moom. Hmm. ma bàyyi la nga àddu ci seeni kàddu yi. waaw parce que xale la comme xale yëpp doom la comme doom yëpp. boo ko amee moom bu feebar toppatoo sa doom toppatoo sa doom damay sang sama doom dama koy defal parfum dama koy teg ci séesam su ma amee lu ma ko jox mu lekk dinaa ko jox mm-hmm. waaye du tee tamit dinaa toppatoo sama doom ba mu set fu muy tëdd dina set fu muy toog dina set du ma bàyyi yére mi mu tilim naa mm-hmm. toppatoo sama doom parce que doom la comme ñëpp. Mm-hmm. comme doom yëpp la. lan ngay lan ngay lan nga gisee ñi nga xam ne dañu am doom mu am handicap ñu daal di koy boo di tegee ko na lee di ko di ko di ko móolu naka naka nga gisee loolu ndax yow doxalee woo noonu. déedéet. Mm-hmm. doxalee woo ma noonu de. kii Cheikh Tidiane la tudd. dañ koo fonk. duma ko ko def parce que doom ju ma bëgg la waaw duma ko ko def te bëgg naa tamit képp ku yore doom mu amee paralysé cérébrale ngay toppatoo sa doom di téye sa doom di jàpp sa doom parce que yàlla moo ñu ko jox yàlla moo xam li tax mu jox ñu ko kon mënuñ ci dara dul téye ko soxna suñu ñëwee ci moma yi gën a difficile ci seen diggante yéen ñaar ngeen waaw ak sama benn doom. ah sa euh, yan moment moo gën a difficile ci seen diggante. ah xanaa nga xëy rek war a dem hôpital te amoo loo demee wala nga xëy war jox ko te amoo. Euh, sa beneen doom bi nu mu koy dundee moo kii kooku moo mag ah, kee kooku moo mag moo topp ci kii kii moo mujjee. kii moo mujjee moo uh-huh. naka naka la koy dundee ah, day metti trop parce que xale la xale la moom tamit mu am fukki at ak juróom. góor góor la day metti rek parce que boo xëyee nga war a jox sa doom. nga war a defaral um, rakkam mu lekk te doo ko am nga war ko jox moom mu dem jàngi te doo ko am day xaw a metti mm-hmm. metti waaye maa ngi sant ko tey te sant suñu boroom rek di euh, sa yaay naka naka la ci taxawee moom tey dëdd na ah. la njaboot bàyyi la ak keneen koo xam ne tamit euh, toog na toogaayu yaay mais naka la fi naka la ci taxawee moom ndax jour dëjëm si boppam rek sa doom dafa feebar ba nga def un mois hôpital ah. mu yu metti yoo dund waaw ah, metti rek sama mag ji moom jàmbaar la ndax place bi sama yaay toogee rek moom mu fa toogee ba tey bàyyiwuñu benn yoon moom mu ngi si kër gi toujours bàyyi këram ñëw si kër gi toujours kon ba tey mi ngi toogee sama palaasu yaay waaw sama yaay tamit nii la ko daan dundeek man di jàppale di ma yedd di ma delloo si suñu boroom di waxtaan ak man ba tey mu dëddu sama mag bi noonu lay def ak man su ma demulee sax dafay ñëw même nu mu guddi guddi guddi dina ma woo dina ma nemmeeku. Mhm. dina xam si lan laa nekk. Mhm. waaw. mais fi mu ne fooy déplacé wu moom foog nga jël taxi. waaw ndax doo ko mën a doo ko mën a téye doo ko mhm. euh, na trop euh, kon euh, dama lay bàyyi rek nga daal di lancer appel ñu ñuy seetaan. ñàkkul ñoo xam ne ñu ñuy xool ñoo xam ne mën nañ la cee dimbale mm-hmm. scanner la soxla ak li nga xam ne rek mooy suivi xale bi ci mm-hmm. feebar bi mm-hmm. ndax xale bi comme niñ ko waxee sànq mi ngi am méningite mu ngi ko dab moom mi un an sept mois xale fi mu ne nii di 13 ans mu ngi juddoon 2010 euh, la juddoon 2010 2023 ça fait 13 ans gis ngeen ni nga xam ne rek noonu la croissance demee euh, màggul ay cëram bañ nañu euh, mënul wax na am nag am nay gestes yu muy def ak yaayam yoo xam ne moom kese moo koy comprendre waaye lu ci bëri daal nekk na ci ay difficultés yu métti métti métti ndax xale bi pour dem rendez-vous rek quinze mille francs lay dépensé sans compter 15 euh, 000 francs yi taxi aller retour 10 000 ak 5 000 tickets sans compter ordonnance yi ñu koy bindal sans compter yi nga xam ne tamit garab yi nga xam ne da koy jël à vie. au quotidien la ko jël chaque jour da ko war a jël des fois mu jeex du am lu mu ko jëndee des fois mu xëy du am lu mu ko mu lekk des mu xëy couche sax da koy ndax ni ngeen ko gis ba tey day couche ba tax na nag ñu bàyyi ko mu lancé appel ni ñuy seetaan ñu daal di koy dimbale. maa ngi lancé bi yëpp mu si mën a jàppale rek nga jàppale ma tamit maa ngi lancé appel nguur gi maa ngi koy woo. di woo ministre bi ñoom ñëpp maa ngi leen di woo di woo kii waa fële ministère maa ngi leen di woo ñoom tamit ñu jàpp si parce que ñoom ñoo war a dimbali xale yi nga xamante handicapé lañu ñoo ngi leen di woo di woo nguur gi surtout nguur gi nag mu jàppale xale yi handicapé yi sonn nañu xale yi handicapé yi ñu ngi si parce que ñun ñu ngi am association mm. te dara avancé wul mu jàppale ñu parce que xale yi sonn nañu. te yaa ngi bokk ci association. handicapé waaw maa ay doom yu handicapé. waaw caaroy gaar waaw bu baax. amaat waaw Fatou ndax euh, moom mooy seen njiit. waa euh, ba tax na tamit fu mu métti mu daal di ñuy woo. ñu daal di ñëw waslu si ak. waaye comme ni ñu koy defee rek ñun waa 7 bi mm. yaakaar naa réew mi yëpp war nañ ko defee noonu jàppale leen seen i difficulté bëri na. waaw bëri na. Mm-hmm. sonn nañ trop xale yi amuñu ko leen di jàppale te. démarche bi metti na euh, garab yi seer na mm-hmm. yoonu hôpital bi tamit metti na faw nga jël taxi metti na mm-hmm. ñu jàpp muñ si mënoon jàppale ñu jàppale ñu nguur gi jàppale ñu dinañ ci gën torop mm-hmm. waaw maa ngi tàllal loxo ñëpp nag ñëpp maa tàllal loxo ñëpp ñu dimbali ñu xale yi handicapé yi waaw ñëpp maa leen tàllal loxo waaw parce que xale yi sonn nañu Euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ma bàyyi la nga joxe numéro téléphone bi. sama numéro téléphone 272. 77 77. 272 06 24. 77 272 06. 24. kon nag looloo numéro bi 77 272 06 24. mooy numéro euh, suñu tata bi di Fatou Condé. Euh, doon ki nga xam ne rek mooy yaayu Cheikh Tidiane Bathily gis ngeen xale bi nu mu demee nii gis ngeen ko macha allah ni melo meloon boobu mi ngi am un an sept mois rafet ba bëgg dee macha allah feebar bi ñëw yàq ko nii muy li nga xam ne rek mooy méningite di wax ne nag xale bi dañ ko montel appareil bu mm. nekk ci bopp bi bàcc ci yaram bi. appareil bi nag comme ni ma ko waxee sànq dafa laaj suivi dafa laaj contrôle à chaque fois ñuy xool ndax dérangé wul wala déplacé wul ak yooyu mais trois derniers mois yi xale bi day yuuxu à longueur de journée euh, day yuuxu rek agité euh, métit la lu mu ci mënti doon dem na hôpital ñu ne ko na def scanner def analyse yi ñu mën a xool ci biir xale bi ndax euh, normal na wala normalul loolu lépp nag mënagu ko ndax euh, ku yoragul 5 millions jëlee taxi yaakaar naa ne doo ko tax ba tax na képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan mën ko te mën ko dimbale numéro téléphone am mi ngi noonu muy 77. 272 272. 06 24. 06 24 77 272 06 24 mooy euh, numéro faatu Condé nekk yaay ci Cheikh bàcc Bathily ku ko dimbale mu daal di jël woote leen ci numéro yooyu. di leen euh, jaajëfal bu baax a baax euh, di la jaajëfal. di la bàyyi rek nga tàggu ni ñuy seetaan. sant rek. daañu mm-hmm. sant ñëpp gërëm ñëpp di leen sant yéen tamit bu baax a baax. Mm-hmm. ok jërëjëf. yàlla na leen jaajëfal xanaa mënul toog si puus-puus. ankay amuñu suñ bos daa yàqu. Ah, amul puus-puus moo tax nga koy takk ci ban. waa dafa yàqu. jërëjëf. Euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kon képp koo xam ne rek mun nga ko may pousse pousse nga jàppale ñu ci ndax nag gis ngeen xale bi nañ koy takkee nii ci banc bi lii rek dafa metti waxatuma la boole ko feebar ak euh, leneen nag leneen léegi naan ndey lu mu jàkk-jàkk-jàkk ut pexe gis ngeen ni muy téyee doomam et pourtant nag amul puus-puus kon nag képp koo xam ne yor nga doom am handicap waslu si àkk te xam ne suñu borom moo la ko teg te bu koy tegg muy jeex euh, ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu waaye jaajëfal bu baax a baax ñu jàpp ci émission bi Kébé Ndiouga Ali Chéri Anta Bayo Assane ak Mame Fama maa koy jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax Issa Pouy ci wàllu cadrage bi jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne Papis Mbaye Adama ñi ci waa production ñëpp fàttewuñu kenn di leen wax fi amaani laa jàngeen jëf ko beneen numéro 7 voix du cœur incha allah ce sera sur la 7 TV la télé qui nous ressemble et nous merci beaucoup à